voilà Sénégal bi xamone demb ak barki demb gisatuñ ko màggal peut-être avant gi yaangi gis problème Aziz Dabala ray nañ ko ñi ko ray nangam sangam ñu jugee ci loolu duggaat ci ay muti fu mbëri nangam sangam instant bi ni may wax ak yow ni tege tembe ñi ngi wax affaire lu Omar Diagne Cheikh Omar Diagne mu nekk lépp loo xam ne mu nekk loo xam lu ñaaw la. lo xam nit ñang koy fësal diko suivre diko like hein di ci wax chaque jour ta ta ta ta ñetti ñetti ka yoyu muy ka yo xam lu lu Sénégal ñaawlu la ah hein. amna amna amna yéne ay mille mille cas yoo lu bax la nit ñang ci suuf di di jibolo nit ñi nit ñang ci suuf di tabax ay jàkka nit ñang ci suuf di maya ay sey nit ñang ci suuf fekk nit ko xam dafa dafa feebar nga nga yëkkati sa xaalis faj ko lan motax sénégalais duñ concentré wu ci lu bax duñ wax ci lu baax mais toujours dañuy jël li gën a ñaaw rek jël ko fësal ko buñ xëyee di ciy wax suba ngoon te amaluñu benn njariñ tey jii nii surtout kaawu Omar Diagne ñun amuñu lu ëpp suñ kilifa yi. ñun mënuñoo am lu am am lu ëpp Serigne Touba mënuñoo am lu ëpp Mame Maodo Malick mënuñoo am lu ëpp Cheikh Bou Kounta Ndiassane mënuñoo am lu ëpp Limamou Laye mënuñoo am lu ëpp Baye Niass mënuñoo am li ëpp suñu kilifa yi te dañoo ñëw fekk suñuy baay ah di leen di topp leen ñun ñu suñuy mag topp leen ñun ñu ñëw topp leen te bañ leen toppee ba léegi amul lenn loo xam ne réccu nañ ko ci ndax lu baax la ñuy digal tariixa mooy yoon moy yoon bi nga xamne mo jëm ci yàlla tariikha mourid dafa am tariikha tidiane am tariikha laayen am tariikha khadir am loolu tariikha tarixa yoon bi nga xamne mo jëm ci yàlla xeru ñu lenn ci lo xamne lu bon la xeru ñu ci dara lo xamne lu ñak fayda la kon nak suñu kilifa yo dañ leen wara fonku a jox leen ci fuñ tok di leen ndamoo mais pas nga jug fee benn nit jugee fële xamuñu kum toon ah, ngay ngay ngay tuutal suñu kilifa yi ku ci ku ku sa baay bëggul sëñ bi sa yaay bëgg na ku sa yaay bëggul sëñ bi sa mag bëgg na ko amul kër goo dugg ah, te amul kenn koo xam ne kilifa yi lay nooyee kilifa yi lay déglu lim doon kilifa yi ñoo ko def tey jii ñun suñu baay bu nekkoon ay ceddo nek fi ci ci baar yi di ka def ay ñun bu ñëwé ay mandikat la ñu doon bu ku ci yalla dimbali wul ay mandikat ngay doon mais suñu bàyyi dañoo top ndigalu sëñ bi top ndigalu yalla te te sëñ bi ndigalu ci yonent bi lay top te yonent bi ndigalu suñu borom lay top loolu yëpp benn ligne la ñun top ñu ñudul suñu mag ñu baax ñi ndax ñom ñoo ñuy wan yàlla ñoo ñuy wan yonent bi nit nag dangay am wéeruwaay boo amul wéeruwaay da ngay da yomb bu max kon nag ñun ñun nañu góor góorgóorluwaat suñu bopp am na ñoo xam ne bu ñu leen déglu mënuñ toog nekk mënuñ nekk Sénégal di dugg dund lu ñu war a dund di jàpp lu ñu war a jàpp gëm li ñu war a gëm ba toll fii nit jógee fële naan ay nàngam sàngam di bëgg a yàq suñu gëm-gëm te nit bo amul gëm-gëm amo dara bo amul pass pass amo dara ñun li leen bëggee ni ñom dañoo gëm seen culture gëm seen magu dëkk gëm seen paat paat kedeer ak paat bernal ak tuba bi ñoo lañ gëm parce que ñoo ñu lañ am kon nak ñun ñun ñun ñi nga xamne ne eh, naar yaa ay imam warsak imam khafizat imam ak imaam naari lañ gëm parce que ñooñu lañ am ñun nag yàlla daf ñoo séddee ay mag yi nga xam ne ñun moom lañ am ñun nañ topp sëñ Tuubaa Mam Maodo topp tarixa yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jëmal ci yàlla ndax fi yàlla moo fi ne loo mën a dund te dundoo yàlla perte nga loo mën a jàpp te jàppoo yàlla perte nga kon yàlla nag ñu fi nekk nañ ko jox bopp ki nga xam ne moo ñuy jëmale ci yàlla ñu topp kooku topp bañ a topp ki nga xam ne moo ñuy jëmale ci saytaane ndax saytaane ba saytaane ba tey iblis iblis ba tey ay sëtam ñooy dund sëtam yooyu di jur di jur di jur di jur ba nii nii nii nii da ngay dëkk ak nit bokk ak mu benn kër fekk maanaam doomu iblis léexe la mën nga am nday mën nga am baay mais iblis mooy fees yow dell nga xam ne yow lu bon rek ngay xam lu bon ngay wax jaxase buggoon nit ñu nekk ci jàmm fekk nit ku toog nga iñaane ko liggéey ko ray ko loolu yëpp maanaam surtout iblis yi ak doomu iblis yi ñoo koy def te ñoo te ñoom ñu ngi ci ñun ñu ñu ngi suñu biir dañuy fekk doomu aadama bu taxaw ñu dugg la ba nga fees dell kon nag am na ñoo xam ne buñ commencé bu ñu leen déglu buñ leen may vie buñ leen buñ wax ci ñoom nañ leen multiplier par par zéro aduna non lay doxé mais instant bi ni man suma gennon fi di wax ci yalla khala laaw khala rasul seigne touba neena di wax lu bax keneen jugé fé nan ay ki awra ba namu tollu moko def moko moko moko ibi moko dugal mom la yow ya may epp sax vie yow la nit ñi di gëna déglu mais ben aduna bi dafa ah, li baaxoon moo mujj a bon xaw ma lu bonoon mujj a baax yow après yow doo xam fooy fooy toll fooy waxee fooy bokk après yow yooyu yëpp da lay réer yow xale jigéen ñi koo ci wax benn ñaar ñett mu ne damay topp kaa te kaa ñuy topp yëpp ay waxi jaambur la ah, ay fen ay ay ay ay laal na ko laalu ko iri na ko iri na ko namp na ko namp ko ah, jàpp na ween bi jàpp na ko kay ba ko jàppee dafa neex neex na kay xoolal ci loolu la ñuy xëy. suba ba ngon di ci wax mais mais mais mais mais ban senegal lañu nek ñu ngi yaq suñu rew ñu ngi concentré wu ci lo xamne ne ñu ben njariñ ku ci nek bo xëyee bala nga def dara bu laal sa téléphone tay ji ko fi yewon fajar bala wax dara téléphone am lay njëkk laal te lepp ci téléphone yi lay xewé téléphone du du du nous du téléphone téléphone